soo daan lu ngeen gëm bay gaaral suñu yónnee sanga soo daan mooy bay looy waa Màkka ak waa Madina boobu nit ñi dañ ko bëgg nag te am na solo ku yee yéen a ngi déglu tambel nanu seyde rola yala sandaleno سيد الوجود الكريم سيد العربين وسقلين سابق المجدين

سيدنا إذا روى الهيبة مغرمة ويمنعنا بخابر فاني تنبيل نسيدي روى الهي على سان جلينا دنياكم ومقامكم ماذا على الإنسان إن لم يقتري تمبل نانو سيدة رولاي على سان جلنا تمبل نانو سيدة رولاي على سان جلنا رولاي سامك يوني كجارباك تمبل xel dul xalaat waa France jox Isaay médaille nan yaay njiit ci diine laay tampeel nanu Seydi Roolaay Alasaan Jalle عميقا واسعا مشرعا شرابه شرابه ليس داخل بدن مانين إيه، وفراس خمجي واي نيوكوس السنت بي تقل كفاي كرات بمدينان كرو رحمن سينا إسار عليكم سينا سمام ak seyida raja sew loomin maqama sew ngir martaba me kawena to be jokkay me day mam seydi buy kollareem ba naan ko kaay ñu naan Isaaya doy yaay ma dal daa watana xabram bu doy danum ñaanu kaay lu ngeen fa ñaan di ngeen kam walaay ay waay Cambérène Cambérène Cambérène noon me daa diine ñun lanu naan sigil isaa fi liine tampel nanu seyde roalaay alasan jàlleeno baay yaaram ba dem na naa la faransa karaaman yow ma ruuyati la daa élise bi nuuri zil isami sëriñ Ousseynou Laay mi ñuy jooy te noppeeguñu way na baayam nee na mooy zawjul misaali waya aba rawufu waya abal masakini fani mutmain niyami bay Useynu Laay nee na yaa taarika fi quluba naasi kulla umo usnan amikan wa maali daxri xayrukumi seydina Isaa roowu laay bakat uyu naarwa jama xariyati yëmbal Dakar Kambareen jami saxlimi wa rahmatulahi andil من السماء مطرا من ماء العذبة أنهارا مع الكرم تمبل نانيو سيد رولاي على سان جلنا واي تمبل نانيو سيدي تذريق الذنب مرجان تخية كارج المثق فاعوة من والع المصاب القلب خيرات يا غازلا لنواخيك مرن فلي نبت تتوه إليها كل توخان وخل أمرها عيسى وخاكميا ما والعفات فيد في مغوان إدريس لا يسمى موي وأنت كف فمن ياوي إليك النجا وأنت قسن قدير دون نقران تمبيل ننسيد رولاي على سان جل bàyyi Sëriñ Abdoulaay bàyyi bàyyi Seynu Laay bàyyi bàyyi Dudu Laay bàyyi Adda Seeni Laay Idrissa sama ma neexaay kootu sama mooy jafandu jàlla mooy weeru gëni mooy kaw inaaya sibtu ma mooy xeru naasi seen ay saar walaay borom ni teelu xaalis sey naa Isaa roolaay jàmbaar yàlla ji roolaay Isaa borom Kambareen tampeel nanu sey de roolaay Alasaan jàlle noo sa jar naa way lan tasuux te seydi mu xam nit ñettin mu xam ni leen leeri nji na wàcca ci man maa di sam su soodaan sërinaa yi saaroowu laay war saxaar kajoor ba yaraax war fa mantulaay jëm yoof fekk saa ba di xaar seydi roowu raxmaan keroog seydi daagu kenn yanguwul col gu sellal tempani baa ak ju koy gorom jamu yor sey di doy na keemaan sërinaa yi saaroowu laay mm. daldi waar ña gëm te dogu mm. naa limaamu dem na banu mm. waaye yàlla moom du fi jóg moo di laawu raxmaan sërinaa saaroowu laay ah. daldi julee baayam ca suba géej ga jooy rangooñ ñu la wet jën ya jaale nag ma woye loolu doy na kéemaan Sidina Isaa roowu laay keroog la daal di jël la baal ba soloon daal di toog fa baay ba toogoon daal di mel na baay ba meloon nekk Seydi Soodaan daal jël yarab lislaam waaju dëng Seydi jubal not no ruy nandal leen géeji leeri raxmaan Sidina Isaa roowu laay waristayil man وآدابا ومكرمة ويمنة من إمام خابر فاني تامبل نانو سيدي رولاي على سالي di isaa doon jaraafa mu di doon naay ba moo koy julee lii am na ñëw seen imaam fekk baayub Abdoulaye mi sidi saarulaay dem Kajoor fil bayti maamur lan ko wax imaam ruuga moo def jantu njolloor suuxti siidi isaaru laayi siidi isaaru raxmaan xëy di samsan fil ñuy xarisa ndax bay ci maamur lay bawoo ñuy joy maamu ñetti fan ya metti naat mu ñëw di foon kanam nga naan ko waalidi tibta xëyan wa mayitan waraabina naa leen ku daan jaamu man nga dem ah. kuy jaamu yàlla toog nu kum xaalixuna idrisa samaam mii mun toog ken jooyatul imaamu naa ba dee jëlaat ko moom ma joona xutbuna tampeel rawalaay alaasaan